waaw bisimilah bokk taal bi lañ bëgg laaj loo euh, bis bi ni ko ni ko ni ko dundee ak ni nga ko yëgee bisimilah. ni ko dundee ni ñu koy yëgee mooy sëñ la Serigne Touba waxoon isa sakartu saalkal mabita tey jii Serigne Touba yàlla fay na ko barki Serigne Touba liggéeyal yàlla rek a wóor Serigne Touba ku xool xam ne liggéeyal yàlla xoolal mbooloo mi ku mën na def Serigne Touba kernal rek yàlla moo tax li ko suñ borom jaral li ko yonent bi jaral moom rek la ko jaral moo tax li ko ay ndongaam jaral ñoom rek moom rek moo am ay taalibe yoo xamante ni fi ñu toll nii bu laajee bakkan yi jox ko moom nag dafa ni woon nag jihaad nafsi moo fi des xeex jeex na jihaar jeex na ndax jaasi kon bakkan yi la laaj nañ ko ko jox. jërëjëf sëñ Khadim si Ndidi kon sëñ Khadim yow lañ bëgg a laaj non bis bi ana nan nga ko dundee ak nan nga ko yëgee bisimilah sëñ Khadim. ah ah xanaa bis ba sëñ Tuubaa di ñëw rek 11 novembre 1902 ñu koy teeru fii ci waaxu Musaafiri bi ci port maam Cheikh Anta woolu maam Cheikh Anta naan ko Cheikh dem naa waaj naa wàcc naa wàccal naa la képp ku ma yaakaar kii daa ñëw ngir wàccale nu ñun ñëpp kii mooy sëñ Tuubaa wallaahi laaj loolu rek laa yëg daal bis bis ba sëñ Tuubaa di ñëw daal wutalum ko bis bi Serigne Touba ñëw na uh-huh. Serigne Touba ñëw na uh-huh. Ndakaaru set na Ndakaaru siggi na uh-huh. lépp fan yëpp taw baa ngi raxas sobe yi fan yëpp taw baa ngi teeru sëñ bi asamaan saa ngi teeru sëñ bi suuf saa ngi teeru sëñ bi kon sëñ bi rek kay dëgg sëñ bi rek kay dëgg waaw sëñ bi ah, yi waaw Baye Fall bi bisimilah loolu yëg bis bi ak nan nga ko dundee ak ñëw ko sëñ Muntaxa gi billaay kontaante gu wér ñu ngi kontaan bu wér a wér luñ mës ta kontaan suñu àdduna la ñu kontaan jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe seriñ Touba taw lim taw fii nag ba Massalikul sampee ba léegi lim taw mosu koo taw ci ci ci ci Ndakaaru Njaay barke Serigne Touba ñëpp bég nañ